World Hijab Day di journée mondiale bu ñu jagleel muuraay ñu koy màggal benn fan bu njëkk ci weeru février muuraay nag nekk na loo xam ne yàlla moo ko santaane ci jigéenu jullit ba tax mu wax ko ci alxuraan ci suurat al ahzab ayat 59 moo xam góor la wala jigéen ñëpp rafetlu nañ boobule bés ñu déglu ñi ci joxe seen xalaat. muuraay moom dafa am solo moom ndax daanaka dañ lay faral di wax sax ne. da nga war muuru balaa ñu lay muur te daanaka boo màggee di muuru da koy njëkke ca bi nga xamante ne moo doo mooy bi nga doonee ndaw ndax waroo xaar ba nekk mag di muuru ndax jigéen moom rawatina soxna dafa am loo xamante ne moo war a feeñ ci ay ay yoo xamante ne moom lañ ko jagleel daal. maanaam jigéen moom daa war di nëbb ay cëram daal. mais muuru ça n'a rien ak jukko nit ki. sa muuru boo dee muuru te sa jukko tamit melul ni war a mel. c'est pas l'appel ngay muuru. yàlla ñun euh, ñun nit ñu baax ñoom la ñu may ñu ko am ko Sénégal moo tax muuraay dañ ko waroon a fonk waaye soo xool léegi jamono ji modd xale yi jàpp nañu soo solo lu bon rek jàpp nañu ne ko si modd quoi ñoom genre seen xalaat seen gis-gis bu gàtt loolu lañ jàpp ne quoi. parce que muuraay moom yàlla moo ñu ko sant ñun jigéenu jullit yi dañ ko war a def lu war la si ñun buñ ko def ngir fësal ngir rafet nañu wàccoo li nga xam ne moom la yàlla wax mooy jigéen nga wàccee sa muuraay ba bu muur ba sa dënn ba nga xamante ni nii kenn ku du la gis daal jàppee la affaire du ñàkk fayda mbala dara parce que nit boo muuruwul bokk ak ki muuru parce que ki muuru cëriñ ko mën a cëral ki muuruwul munu ko kon nag ñun jigéen ñi nañ gën a farlu si muuraay gën a defaraat suñu toogaay. am na ñoo xam ne aussi ñi ngi muuru te aussi li muuraay laaj lépp defuñu ko. waaw ma wàllu wàllu modd ak wàllu aussi tamit jukko jukko nit ki d'abord boo dee jullit da nga war a jullite avant di def yëfu jullit muuru moom lu baax la ma wax dëgg fa yàlla. moo tax doonul loo xamante ne ngëneel la jigéen di bañ a muuru daa war a muur ay cëram fu mu manti toll ndax nee nañ boo muuruwulee sax yow mënaakam yërmande du nekk fa nga ne yow. te jàpp naa loolu di idée bu baax quoi su nit. sooy xool da ngay xool ci idée bu baax di roy suñuy baax ni ñi muraay léegi moom jéggi na dayoo ndax sooy xool am na ñoo xamante ni dañuy génn sax fii daanaka jigéen ngay gis ñu ñëw si marché bi duñ teg sax seen bopp yi karaw te loolu baaxul loolu baaxul loolu njëkk nañ ko aaye si téere alxuraan ñu jàng dëgg xam nañ la may wax ba tey man naa ne benn côté kon jaratul muy muuru kon dèjà tey di nga gis ko xam maam day muuru sol lu jot te du tafu ci yaramam boobu bëgg naa ko man yu léegi xale yu jigéen yi daanaka si bopp yi la rek dañ koy modifier ba nga yaakaar ne greffage alors ko du noonu muuraay moom foog mu wàcc wax ni ko yàlla soxla yee ñu jëf loolu mooy wàccook bindu yàlla bi si muuraay nañ ñun jigéen ñëpp maa ngi leen di ñaan di leen ñaax ngir ñu def loolu ngir ñu wàcc ak muuraay niñ ko santaanee. mu mel ni nag boobu leen digle ku nekk rek am na lu waral nga koy def bu ñii di ko def ngir matal seen diine ñeneen ñi di ko def ngir mode wala tendance am na sax ñu jàpp ni loole weesuwul di nax sa bopp am diine la mode wala tendance jigéenu jullit war na defar colinam ba ku ko gis jox ko cër